ngi gërëm yàlla bu baax bi mu ko defee jullit def ko murit ne maa ngi nuyu Serigne Bass Abdou Khadir ne nuyoo bi nag maa ngi koy def ci tur coalition bi ma àndal ne tama tudd léegi seeni tur ne ki ci jiitu mooy PDS ne nga xam ni président Ablaye Wade mooy njiit li mu teg ci partem di bokk gis-gis ne teg ci AJ/PADS du Mamadou Diop Decroix ne teg ci teg ci CRD ne teg ci jot na ne fa tabaar kalaaw kilifa yépp a ngi nii ne Abdoul mbay mu ngi fi ne Mamadou Lamine jàll mi ngi fi ne Bruno Derneville mi ngi fi ne ak ay responsable PDS ne ak responsable sama parti ne ci ñooñu moom mën cee tudd Cheikh Abdou Bara Dolli ne ak Cheikh Mbacké Bara Dolli ne ndax moom moo fi toogal PDS ne kii toog di Cheikh Abdou moom it moo fi toogal bokk gis-gis waaye tey loolu yëpp ne dafa seey ne ndax tey coalition bi rek moo jiitu ne Cheikh Bass maa ngi lay nuyu ci turu coalition bi ne di la ndokkeel ci bis bu màgg bii ñu jublu ne ndax bis la boo xam ne nee ñun ñi di murit nee li ñu sëriñ Touba liggéeyal nee xamuñu ko lépp nee damay faral di wax ne nee ñun murit nee duñ ko tuddoo nee dañ koo wone nee dañ ko war a wone nee murit du lu ñuy tuddoo de dañ ko war a wone nee ci suñu comportement de tous les jours ne képp koo xam da ngay woote ni murit nga da ngaa war a fexe ba ku la gis ne ak ci loo yëngatu ne nga wane ca njub ne wane ca fulla ne wane ci fayda ne ba ku gis ne naw la ne jarul rek nga ni man murit la ne te lu ñuy def lu dul noonu rek ñu fekk la ca ne ab murit daal ne Serigne Touba daf ñoo yar nee ngir ñu jariñu fii ci àdduna nee ëllëg ñu jariñu nee loolu mooy résumé nee Serigne Touba yoonam wii nee yoonu yoon la woo xam ne jaamu yàlla la nee ak liggéey nee maam Cheikh man Bamba nekk nitu jàmm bu rëy rëy nee ndax bala moo dem géej mënoon naa jàkkaarloog tubaab bi. ne te boobaa mooy am ndam de waaye moom dafa préféré ne wone non violence ne dem ne am ndam ne dikkaat ne fekk ñu fi ne ba tubaab bi ko yóbbu woon ne tey bàyyi ñu fi ne ñun ñii tey ñu yoral suñu bopp suñu réew ne loolu daf ñoo woon fa aw aw sas ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ay homme politique nee képp ku kuñ ci dénk alalu réew mi nee war ngaa fexe ba sàmm ko war ngaa fexe ba liggéey liñ la sant nee ba boo lëggee nee boo tëddee nee nga mën a nelaw nee nga am la conscience tranquille mu àggale ko ci mbooloo mi fi nekk ñépp bu ci tuddee ministre Abdou Mbaye tudd ci Mamadou Lamine Diallo tudd ci Abdoulaye Niang ndax nee na day bañ di leen lim sax bañ cee am kum ciy fàtte boo xësee tudd kenn rek sëriñ bi ne tudd na ñëpp waaye am na ñoo xam ne mu ne su na ñàkk jukki tudd leen sëriñ bi ne dañoo ànd ci délégation bi waaye nag dañ ci amaat seen beneen cëru bopp yoo xam ne mu ne su leen a ñàkk nuyu muy Serigne Cheikh Mbacke mii moom sëñ Bara Doli ak Cheikh Abdou Rakkam mii ni mu ko waxee woon barki démb bi nga fi ñëwee nu fekke ko nga indi fi ay masque yow yow da ngeen a am ci moom ñaari cër ndax yéen seen maam sëñ Abdou Dia xam ngeen ni mu gëmee woon sëriñ bi xam ngeen ni mu demee woon ak sëriñ bi sëriñ bee ko yar daan ko wax ne ko sama doom nga waaye mu liggéeyal sëriñ Touba Serigne Touba gërëm ko tofal ko mbooloo kon loolu doyoon na ab ab cër sëkk ci yéen Serigne bi ne lii boolewuleen ak moom Serigne Bassirou nee na bi yàlla defee ñu fal leen seen ba tànk yi seen wayjur muy sëñ Baara Doli day nitug Serigne bi lool. ginnaaw bokk gi ñu séq kóllëre gu xóot daa ànd ak yéen jóge ci sëriñ bi mu fekk ko fii mu toog mu ne dama lay dénk sa ñaar ñii ndax say doom lan say taalibe lan ñu ngi dugg ci àdduna nag ci cër bii nu leen jox waaye dama lay ñaan lépp loo xam ne muy gis nga ko nga war leen koo digal wala loo leen war a tele wala nga gis ñu def loo xam ne jaaduwut na nga leen woo ba ñu ñëw te xam na ni loo leen wax loo leen wax rek ñoom di dinañ ko def nee na ñoom ñaar ñi sàmm nañ loolu sëñ bi nee na jàpp ngeen ko bu baax te yéen a ngi koy doxal diggante seen diggante ak moom sëñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal bu baax yàlla dimbali leen kàttanal leen ba ngeen mottali mission bi na gën a rafet nag ne mi ngi nuyu sëriñ Abdul Xuddus moom sëriñ Moodu Faati Xari way juróom sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke doomi sëriñ Masamba ja ku ne xam ne Seex Masamba ni mu demee ak sëriñ bi ne sa way jur yow bi fi doomi sëñ Tuubaa yi di ne daa laxasaayu woon ànd ak ñoom ànd bu wóor na sa maam defoon ci biir kër sëriñ bi lu nu mas a woote rek boo demee ci archive yi sëriñ Fallou yi sax am na ci wax ju sëñ Fallou di wax wax ju xóot ne keroog sëriñ Modou Faty Khary sa wéy ju doon dagg micro bi noonu nii la meloon nag njabootu sëñ Touba génn sëñ Abdou Khadir Mbacke at mu ne daal na ko gane di ne te noonu ñëpp noonu lañ def sëriñ bi nee na loolu kon boolewu leen ak yéen nee mi ngi nuyu sëriñ Assane Mbacke muy sëtub sëriñ Mouhamadou Fadal ci wàllu ndey nee na moo sëriñ bi ñoo bokk menn maam ca Musoobe ca Musoobe ya sëriñ Musoobe sëñ moo roqo yi bu so mi nuy dégg nga xam ne jarbaatu ku tedd ki la woon mooy maam nee na moo maamu sëriñ bi ñoo bokk ndey ak baay sëriñ bi ne la boole moom dafa bari sëriñ bi ne ñu ngi nuyu ñëpp rek ne mi ngi nuyu président Mamadou Diop Decroix Mayoro Niang sëriñ bi ne mi ngi lay sëñ Mayoro Faye sëñ bi ne mi ngi nuyu sëñ Aliou Diop ak yéen ñi ci des ñëpp ne mi ngi ci rafet lu baax nag délégation bi ndax fii moom cinq heures fii seen kër la ci fànn yëpp mi ngi leen di yóbbante nuyoo nag ci président Ablaye Wade di ko yóbbante cant ak ngërëm ak ñaan ne ñaan gi nag yàlla gën a aw fanam dolli kàttanam ba mu yàgg leen a gunge ndax taxawaayu président Abdoulaye Wade ci yoon wi ak réew mi lépp rafetal na ko ndax looy def di ko seereel yàlla te yàlla rek tax bu fekkee yàlla rek tax bu ko nit ñi xamut it doy na euh, Babacar Gaye nee na dafay ñëw démb di fàttali boobu Omar Sarr la àndal ci Karim Wade bi mu nekkee ci biir prison bi di fàttali la nga ca defoon doxoon nee na mu ne ko jarta leeral sax nee daal daal ne ko jàpp naa la ma ca def nee na moom sëñ bi jàpp na la ma ca def kenn defu ko ci waaye ginnaaw nag soxlawul kenn du ko xam nag yaakaar na ni ku ko gëstu danga ko xamal sa bopp waaye nag la mu ca def moom mi kenn defu ko ci ginnaaw yàlla nee na jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullah sëñ bi maam jaara Moussa Diop sama mag amin amin Famara Famara Senghor gars yi dañoo maskaw amin sëñ bi président Pape Diop moo nuy wéttali Masalikul Jinaan moo nuy wéttali président Pape